Euh, dama bëggoon ñu profité nag recevoir koo xamante ni sànq euh, ci bi ñuy tàmbali de Korité 2021 njëkk nañu dem Pikine euh, fa mu am place waaye nag dafa amaat place boo xamante ni mi ngi ko am fii ci Sacré Cœur muy laxaat gisee bijouterie laxaat xéewal fan yi yëpp gis ngeen takkaay yi nga xam ni ñoom kepp sak xale yu jigéen yi ci quartier général ñu ngi koy takk lépp ngi jógee bijouterie laxaat xéewal laxaat gisee nag nekk koo xamante ni am na jom nangu na liggéey mu ngi créer emploi tey bu ibbee pikin mu dox mu dem ba ibbi Sacré-Cœur jigéen yëpp di fa dem mu yombalal leen njaayum takkaay ak njëndum or loolu defe naa jar na Sénégal yëpp gërëm ko ci ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax mu ñëw fekk suñu ci plateau bi laxaat gisee borom bijouterie laxaat xéewal benn baa nga baa ngi sacré laxaat xéewal noonu lañu ko tuddee comme VIP Gold. Sacré-Cœur 3. VIP VIP Gold. Laxaat gisee. kontaan nañu. ci sa teewaay tey. ci li nga xamee ni moo di mode Korité 2021 ñu bàyyi la nga nuyoog suñu xarit yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan Laxaat. asalaamaaleykum euh, mbokku téléspectateurs yi. maaleykum salaam. Euh, maa ngi nuyu téléspectateur TFM yëpp. Mm-hmm. yëkkatil micro di nuyu diaspora bi. Mm-hmm. di nuyu le monde entier. Mm-hmm. VIP Gold li ma koy wax rek VIP Gold ñëpp la. Pape Cheikh. maa ngi nuyu ñëpp. di gërëm ñëpp di tatagal ñëpp. alors VIP Gold VIP Gold Gold ñëpp la gis nañu euh, keps ci takkaay yi gis itam ñi bëgg lu baax euh, laxaat xéewal laxaat xéewal laxaat xéewal dem ba VIP Gold fii ci Sacré Cœur euh, sànq jot nañu waxtaan ci boutique ba ca ba ca ba Pikine mais bu Sacré Cœur bi itam da nga gën a yaatal ubbi ko Sacré Cœur Sénégal yëpp am possibilité ñëw ci laxaat ñëw VIP Gold pour am fa takkaay mais ñu yombalal leen ko ak original or bi loolu lu mu juddoo. dama li nga wax Pape Cheikh dafa am solo parce que yaakaar naa ñun ay sénégalais lañu euh, bëgg a bokk ci ñi contribuer ci réew mi te li may wax chaque jour mooy nit jom nit jom nit fulla nit personnalité li koy umb nag mooy liggéey euh, dafa am fu ma commencé base muy Pikine sànq Assane ñëw na am na lu mu wax li ma naan euh, xaw ma nu ko ci keetu xaw ma lan euh, yàqul euh, am na nu ko olof di waxee. Assane presque wax na roof yàqul jën Assane wax na lépp presque. Uh-huh. damay ñëw rek pour briefing. damay ñëw rek pour briefing. mais li may wax mooy damay liggéey. dama gëm liggéey bi. dama ko bëgg. Uh-huh. parce que li may wax chaque jour mooy. lépp looy def soo ko gëmul soo ko bëggul rek doo ci am réussit uh-huh. wallahi Pape Cheikh jigéen ñi jënd bijou maa leen gën a bëgg bijou yi chaque dañ may wax naan ma laxaat yow lu tax sa bijou am raarate lu tax sa bijou euh, bu ñu ñëwee sa place léeg-léeg client day ñëw suma magasin su ñëwee xool bijou bi ñu waxaale mu ma noo diw léeg jaay maa ngi dem ma ne ko ah, amul problème demal su demee tourné ñëwaat ni ma laxaat franchement say bijou dafa raar loolu nag liggéey ñu gis li ñu bëgg feneen non non non mënul nekk parce que dama xam li may def dama ko bëgg dama ci tarbiwu dama ci yàgg ñi may seetaan nekk seen saali xam nañ li may wax tey ku ci am xew wala programme boo xamante ni si programme boo xamante ni si bu la ñor la non foog nga seeti la xewal VIP góor macha allah parce que lépp lépp looy def raarate daf ci am solo ñi jaay bari na waaye boo demee ba laxaat xewal egg si benn niveau bi lan moo ko ko may mooy bijou rare dafa am solo booy def dara nga bëgg ko booy def dara nga gëm ko nga am ci amour mooy tax nga am réussite xam nga tey Pape fi nga toll tey ji ci ci animation nga nekkoon tele yàgg na ay tele yoo xamante ni si yàgg na nga ñëw ba egsi fii lan moo la ko may sa gëm-gëm sa fulla ak sa fayda affaire bi amul amul amul naxaante gëm-gëm la ak fulla ak fayda bi ma nekkee Pikine teg li may teg Pikine ba pare noo dem ne pourquoi pas Sacré-Cœur 3 mhm, mhm. pourquoi pas Paris pourquoi pas Amérique parce que ay nit lañu mhm. il fallait ñun ñun sénégalais ñu gëm suñu bopp gëm suñu bopp c'est important c'est important parce que tey teraanga lu mu lu mu rëy rëy rëy doomu aadamaa koy am te teraanga li ko li ko li ko li ko wumb ak li ko tey mooy liggéey il fallait ñun ñu liggéey gëm liggéey bi am ci fulla am ci fayda loolu kase la du la man dama gëm liggéey am ci fulla am ci fayda te li may wax ñi may seetaan ñëpp xam nañ li may wax dëgg la donc VIP Gold euh, bijouterie euh, baa ngi Sacré Cœur 3 Kebs yow euh, xam nga ci dara ni nga ko waxee noonu la xam nga dafa wax léegi lu am solo ñiy jaay or bëri na mais moom li nga xam ne mooy def particularité mooy bijoux yi muy jaay dafa original te li tax mu original mooy day wër fépp ci àdduna bi laxaat li muy toog fii sax bëriwul ba pare nag boole ci yi nga xam ne moo am fii maanaam bàyyiwul benn continent ba noppi tam rareté bijou bi muy wax Pape Cheikh léeg nga gis bijou boo xam ne da koy am da naan sax lii est-ce que or la parce que ni ñu koy tëggee la bijou yu tubaabe ba pale classique ba noppi registre boo ko woo muyu la mhm. boo boo boo loo tarbiwul doo ci jariñu man dama tarbiwu sama liggéey ñi may seetaan xam nañ ñi ma xam xam nañ ni li may def amour laa koy defee amour ay bijoux yu am ay perles yu rouge yu vert couleur yëpp su ma tukkee damay jël suma temps man fu ne laay dem ci àdduna bi mais fu ma dem damay jël suma temps xool bijou même bu main d'œuvre bi chéré dama koy jël indi ko duma ma xool lu yomb damay xool lu raar lu rafet loo xamante ne si bu client bi ñëwee day am satisfaction loolu c'est très important parce que dañu toll foo xam ne kenn mënu nax kenn dañu toll ci jamono ju boo xam ñëpp a yeew ñi doon nelaw ak xaw ma nu ñu ko olof waxee dañoo bëkkante ñëpp a yeew mun kenn mënu nax kenn te boo toogee ci télé di wax nit ñi dañ xam ba xam li ngay wax dëgg loolu dëgg parce que nit ñaa ngi ñëw say place di xool mais ñi may seetaan ñëpp xam nañ li may wax dëgg la comprendre nga kon nañu gën a liggéey gën a xam nga gën a jàpp ci liggéey bi bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi nag euh, di euh, nu ñu koy waxee sax di nuyu suma client yëpp waa diaspora parce que dañ ma yàgg jàppale am na client yoo xam xamuñu ma sax wallahi te ay lu ne la ñuy sekk man ak ñoom teraanga bu ne laay sekk ak ñoom am na ñoo xam ni wallahi mosumaa teg ak ñoom bët dem naa ba sekk ñoom teraanga yoo xamante ne si ngor rek moo ko moo ko moo ko lal ak jub kon ñoom mënu ma leen fey diaspora bi moom mënu ma leen fay mënuma leen fay maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di nuyu tamit euh, di nuyu waa Sénégal gi yëpp parce que tamit franchement dañ ma jàppale Sénégal dañ ma jàppale. mais mais li tax ñu jàppale la yow yaa ko liggéey <clears throat> pour wane ni jàmbaar ga ginnaaw Pikine euh, Sacré-Cœur fii VIP Gold jot nañu faa doxantu loolu itam bëggoon naa ko woon téléspectateurs yi ñu euh, xoolaat qualité ak. liggéey bu rafet bi nga xamante ni moom la laxaat gisee nekkee laxaat xéewal na ko ñëpp xamee euh, laxaat xéewal euh, mu ngi Pikine waaye boo demee fii euh, VIP Gold Sacré-Cœur di nga xam ni njaayum or fii ci Sénégal ak bijou bu rafet moom moo tax ñu koy wax regardez musée euh, ubbi euh, fii ci euh, Sacré Cœur VIP Gold jigéen ñi bëgg lu baax yépp fa la ñuy dem jënd fa ay bijoux di taxawaay boo xamante ni mënuñu lu dul gërëm la ci nga nekk xale ba pare di def lu am solo lii di jaay ay bijoux qualité am na ay solution yoo xam ne nag tegal nga ko jigéen ñi yombalal leen seen am amuk bijoux waaw nga jigéenu Sénégal comme ni ko Assane waxee sànq dañu am maanaata dañu bëgg lu baax te ñu bëgg lu baax. Mhm. te jamono tamit neexul comme jamono neexul dafa am ay bunt yu bari yu leen di ubbil. Mhm. tey mën nga gis bijou un million. ngay dugal trente mille cinquante mille quarante mille. di aar quoi di aar ba mat parce que jamono neexul. Mhm. te bu jamono neexul foog ñu xam nuñ koy gere ak ñoom. leen dimbali mën nga gis benn bijou nga def avancé. comprendre nga. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba pare tamit suñu site internet ñu ngi koy waaj lancer fan yi. ñu ngi koy waaj lancé ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne si mënu ma ko wax ci plateau bi. Mhm. parce que man li may wax chaque jour liggéey moo ñu tax a jug. Mhm. liggéey moo ñu tax a jug. Mhm. te dañu bëgg bokk ci ñi bokk ci développement réew mi. parce que tamit réew du wax moo koy. développé liggéey moo koy développé te le président de la république dafa wax ni pour ñu jàppale nit ñi. képp ku am tuuti jàppale jël ay employés ñun nag ñu ngi ci ci base boobu ñu ngi ci yoon boobu. am nañu ngi ciy jàpp am na ñoom direct am ñoo xam la. kon nag euh, maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. dina euh, koo xamante ni si nag foog ma jël ci moom benn une minute nga baal ma. Mhm. muy madam gise Adja Lo. Mhm. muy muy muy soxna soo xamante ni si dama koy ñaanal gudd fan ak wér. di ko ñaanal njaboot gi ñu am yàlla barkeel ko. parce que nag li tax may wax loolu mooy jamono metti woon na mhm. te mësul xaddi tey kon moom mënuma ko fay dama koy ñaanal. di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax di gërëm waa Touba. ndax man falaa bokk maa ngi leen di gërëm bu baax bëgguma lim bu ma limee ku mel ni soxna Baali Muntaxa nga xam ne moom ñëpp xam nañ sama diggante moom mm-hmm. ñëpp àdduna xam nañ sama diggante ak moom ni ma yaayoo ak ni ma bëggee mm-hmm. bàjjan may maa ngi koy ñaanal moom tamit bu sëñ Abdul Ahad mm-hmm. moom tamit muy sama bàjjan di suma lépp di nuyu ñëpp di nuyu tamit koo xamante ne si lii ma sol moo ma ko defal muy soxna Faati Sidi mu sëñ Abdul Ahad moo ma jox mbasin bii Mamadou joxaane ñëw jaar ci xam nga moom dafa ndenge moom daal yàllaa ngi moom daal moom nañ ko bàyyi ak yàlla rek quoi macha allah di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu tamit koo xam ne moom laa waroon njëkkee nag mhm. muy sama yaay mhm. maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal sama papa mi ngi biir suuf mhm. yàlla xare ko aljana maa ngi nuyu ñëpp di nuyu su may employé parce que tamit bu lekk lekkee arom ne ko gëlëm a cooy muy ñi nekk pikin parce que Assane ma nga fa moo doon wax sànq ak Pape Mboup ak Fatou ak Cheikh waaw franchement Kebs xam na Cheikh. Euh, Sacré Cœur Xaadim euh, dem ma nga fa Mor Seye nga fa Fatima nga fa Bernadette nga fa muy sama assistante moom tamit di nuyu Diallo suma assistant foo ma gis-gis ko franchement mënu ma leen fay parce que tamit dañ ma jàppale nekk ñu sérieux kon maa ngi ñaanal ñëpp bus yaa ngi noonu uh-huh. Sénégal bu ngeen ñëwee di ngeen am lu baax uh-huh. kontaan naa ci yéen uh-huh. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Lahat kontaan nañu VIP Gold ma joxewaat numéro téléphone yi euh, ku bëgg demal euh, Pikine waaye fii Sacré Cœur Euh, boo demee euh, euh, bijouterie laxaat xéwal VIP Gold numéro téléphone yi mën nga joxe man tamit ma joxe waaw. VIP Gold. 77 198 84 84. 77 198 84 84. 510 77 519 09 31. 33 821 31 35. wala 77. 198 84 84 wala 77 519 09 31. 31. kontaan nañu. kontaan naa ci jaajëf Abdoulaye Abdoulaye jërëjëf Guissé nuyu ñu Adja Lo madame Guissé. Ah, yaay la merci Abdoulaye Guissé. jàmbaar la borom VIP am nga jom nangu naa liggéey. Ah, kenn du yow ba noppi itam yaa sagal jigéenu Sénégal. bijouterie laxaat xéewal ca VIP Gold fii ci Sacré ak euh, laxaat Guissé borom laxaat xéewal.